benn muy ko am ab thème bu mu ñëw ñu waxtaane ko wala muy ko bind ab téere wala muy ko am ab xew-xew bu jëm ci daara ji tabaarakallaa yu yëpp ci la bokk suñ bàkk sotti ci ak def ci la tey nag ñu war a dalal kon suñ bokki daara yu bàyyi ko fële ca buun xam naa ca uh, oustaz saybatul hamdi rahimahullah eh, ñu war a seq ak ñoom jotaay bi di imaam ibrahima diop ak imaam mouhamad juuf oustaz ni ñuy def rek kon mooy daal di wëlbatiku fas yéene euh, tàmbaleeg ñoom waxtaan wi. Mm-hmm. Mm, xam naa euh, ñoom ak yow ak ñun ñoo bokk terrain bi kon. <laughs> nee na léegi yéen laa tudd gaynde yi. parce que mm-hmm. daa mel ne gaynde yi coupe de leen a waaye yéen yéen a ngi ami coupe seen i la kenn wanewul rek. alhamdulilah waaw kay euh, kon nag oustaz gan ñaa ngi noonu. des des na ko mas a wane incha allah. incha allah kon nu bàyyi leen nga tàmbalee sa ndeyjoor. ayca imaam Ibrahima Diop kon yow la ñuy jox kàddu gi nga nuyoo ak mbokk yi bismillah. wasalaatu wasalaamu ala almabuusi rahmatan lilaalamin wa ala alihi wa asxaabihi alkiram wa man daa bi daawatihi wastanna bi sunnatihi ila yawmi ddin ixwat alkiram ixwat alislam asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit ginnaaw bi ñu sante yàlla jullit yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñu ngi leen di nuyu nuyoo bi gën ci nuyoo yi muy nuyoo lislaam ndax la muy tekki benn nuyoo tekkiwu ko mm-hmm. la muy tekki mooy jàmmi yàlla ak yërmandem ak barkem yàlla bu mu deñ mm-hmm. di wàcc ci sunu kaw fa tabaarakallahu yàlla ñu ko yàlla defal ñun ñëpp mm-hmm. tabaarakallahu ñu ngi nuyu sunu ustaaz fadilat cheikh al ustaaz ali sall xafidahu llahu wara di nuyu ustaaz mbàkke di nuyu mbokki jullit ñëpp rek di nuyu waa kër gi ñaan yàlla yàlla fu fi barke dañ di fi dotti amiin yaa rabbi tabaarakallah amiin jërëjëf imaam Ibrahima Diop ci nuyoo bu jotale bu rafet boobu macha allah oustaz kon xam naa ni ñuy def joxaat suñ beneen imaam bi tey moom daa mel ne ab xutba moom ko fi indi woon doo ñàkk ku la ko jàngal <laughs> muy imaam Mouhamed Diouf imaam Mouhamed ñu bàyyi nga nuyoo teg bokk yi. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu ngi ubbi suñu kàddu ci sant bur yàlla subhaanahu wa taala di julli di sëlmal ci gën di mi def di Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mm-hmm. di nuyu suñu ñijaay bopp. ndeysaan di Oustaz Alioune Sall. Mm-hmm. wax dëgg yàlla mu nekkoon xaritu suñu kilifa Seybatal Hamdu Diouf. Mm-hmm. xaritam di wëllëram ñu sikkoon lu bare bare bëri. moo tax man fu ma ko gisee rek sama yaay laa koy woowee. ndax di ko xoolee bëtu Oustaz Cheikh Matal Hamdi. Eh, di ko nuyu di la nuyu Mbacke si la. jërëjëf di sa liggéey ci rajo bi. jërëjëf wax dëgg yàlla surtout fan yi dem yi nga jël ci fajar bi am na solo lool lool. ndeysaan jërëjëf. Eh, ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla yàggal taxawaay bi. <laughs> di nuyu bu baax imam Pape Alioune Guèye. nga xam ne moom mooy imaam ratibu jumaa ja mhm. ak mboolem imaam yi ànd ak moom ci liggéey jumaa ja yëpp mhm. waa buun yëpp ñu leen di nuyu mhm. waa Mboul kilomètre cinquante ak dëkk yi la wër yëpp ñu leen euh, allah di bokk nuyu mboolem imaam yi euh, ndax fi ñuy jëm ni tey seen mbiru bopp la kon maa ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp di baalu ñëpp àq di ñaan yàlla yàlla ñaan bu lay jéggal amin jërëjëf oustaz jërëjëf oustaz euh, Alioune kon dégg nga suñu nuyoo suñu gan ñi di hmm. imam Mouhamad euh, Diop ak euh, suñu mbokk imam Mouhamad Diouf ak suñu mbokk imam Ibrahima Diop ñu ànd ak suñu mbokk Balde <laughs> tubarkàlla kon oustaz ni ñuy def rek mooy daal di fas yéene tàmbaleeg ñoom waxtaan wi tàmbali ñoom waxtaan wi xanaa seetal ko micro ba xam waaw allah waxtaan wi incha allah incha allah <laughs> kon ñu bàyyi suñu mbàkke mu seetal suñu gan gi micro bi incha allah xaw naa ki tuddi nga laal ko tubarkàlla tubarkàlla bu leen taxal seen ak déglu أحييت لدى القلب الأملا أرضك يا ابن الدين تنادي بكلماتك أنت عظيم وبكلماتك تفرحني haj Mbacke waaw jërëjëf oustaz kon xam naa ñi daal di ci li xam ne mooy waxtaan wi <laughs> tubarkàlla waaw kay daal koy doore ci imaam Ibrahima Diop mm-hmm. xam naa lan mooy seeni tànk lu ngeen xewle ah. <laughs> tabarakallah mm-hmm. oustaz ngi lay sant di la gërëm mm-hmm. euh, tànk mooy ñëw fii leeral li nga xam ne ci la jàkka bi sës ci oustaz say ba kër oustaz say ba di yëngatu mm-hmm. jàkka la joo xam ni mm-hmm. tabaarakallahu oustaz moo ko fonde woon mm-hmm. ah ñu commencé cay julli di dox yàlla wàcce fa barkeem yëf yooyu dox ba béréb baqat mu am iqbal lool nit ñi dégmal ko ba béréb baqatee nag tabaarakallahu kër ga sës ca moom di jaay mm-hmm. ñu waxaaleeg borom mm-hmm. ah tabaarakallah mu may ñu ñu wuti mm-hmm. yelwaane ba ñu yelwaane am nañu la ëpp nag cee njëgga la ci des bareetut ah tabaarakallah ñu ñëwoon fii nag ci émission bi pour waxtaan ak uh, mbokk jullit yi nga xam ñoo ñuy déglu ñun ñëpp ñoom ñëpp ak fu ñu mën a nekk di leen ñaan ñu jël seen loxo jaayanteeg yàlla dugal ko ci jàkk ji mhm. ba su ko defee la des ca kër ga mat mhm. ñu mën ko yokkee jàkk ja mhm. euh, ca loola nag dañu namoon taxawal benn conférence boo xam ne sunu oustaz oustaz Ali Sall moo ñu ko nam ma defal dimanche bii di ñëw incha allah bu seize heures jotee jàpp dix-sept heures boobu nag solo ga mooy lépp lu ci ruusee rek dañ ko nam ma jël dugal ko ci sànce jàkk ji kon loolu moom lañ bëgg a euh, waxtaane su ko defee ma taxaw ni foofu rek mm-hmm. bu ñu demee ba ci kanam ñu ñëwaat ci détail incha allah. Mhm. am na solo kon oustaz dégg nga ko. Mhm. dafa mel ne Cheikh Ibrahima wax nañu. li mhm. leen tax a jóg. mooy ab conférence bu ñuy waajal. Mm, waaye itam jàkka joo xam ne amoon nañ ko. ca euh, wetu euh, oustaz Seybatul Hamdi. jëndoon terrain ba ñu def ko jàkka mu dem ba mu xat ñu bëgg koo yaatal bëgg a jënd kër ga mu lool boole ko ca jotaay ba. oustaz dafa mel ne. Euh, dégg nga xaj loolu day suñ bi dina am solo lool. rawatina foofu nga xam ne fa lañ koy bëgg a def. Euh, ca fa nekkoon ca wetu kër Cheikh Batul Hamdi Diouf mhm, foofa soxla na jumaa ji lool mhm. te itam jumaa ju am ginnaaw lay doon su mhm. boobaa ndax duruus ya fay jóge xotab ya fay jóge dëgg la moo jur iqbaal googu nga xam ne moom la mbokk mu junj léegi sëñ Mbàkke mhm. kon nag ma bàyyi la nga ñëw sa deuxième question jëm ci suñu mbokk Diouf jërëjëf Cheikh Ibrahima euh, Cheikh Oustaz Mouhamed juuf dégg nga sa mbokk mi bi euh, biñ ko laajee ne ko lu leen tax a jóg euh, li mu tontu ndax yow loolu rek leen tax a jóg wala am na loo loo xam ne da koo fàtte wala loo ci bëgg a dolli rek <laughs> waaw dafa mel ni na mhm. sées ak jàkka ji. Mhm. wax dëgg fa yàlla sama nijaay ji wax na ko léegi. Mhm. Oustaz Chaybat Alhamdi Diouf. Mhm. Euh, ku nekk xamoon na taxawaayam ci réew mi. ci jàng ak jàngale ak yar. yàlla dogal nag ci koñ ba mu tabax fa benn institut islamique bu mag. mag ñu bari nag gis ko. tawat ko nag ci mbirum jàkk. ne ko ah Saybata wax dëgg yàlla fu ne ci réew mi day jiitu nga fa jumaa fu ne ci réew mi it def nga fa conférence ñun day bëgg nañu nu ñu mun a fexe ba muy am fi jàkk mu jël ñàkki boppam jënd kër ga mu sesu ak këram mu tabax ko ba tabax ba yegg woo kart carte ba nee na kaay leen kat ñu def fii bërëbu jaamukaay yàlla mhm. Mhm. ñu ne ko Saybata yaay nekk imaam mun a déedéet Mm-hmm. ndax su ma nekkee imaam dañuy naan man maay man maa moom jàkka ji. Mm-hmm. léegi nañu xool ñan la ñu doy ci biir koñ bi. Mm-hmm. ñu def lu ma ab imaam. yàlla dogal ñu tànn suñu mbokk ma Pape Alioune Guèye. bu taxawee jàkka ja jiite ko jiite yu rafet lool. ah léegi nag comme ni imaam bi daanelee kàddoom léegi. ba ñu yëgee ab njaay ma fekkee yàgg nañu xelaat. jàkka ji nan lañu mën a fexe ba mu yokk sama ñu wax na ko léegi ba muy daanal kàddoom. ndax jàkka ja wax dëgg fa yàlla Euh, liggéey yu ama am solo la fay lañ fa taxawee. Mm-hmm. xëy na dinañ ñëw léegi ci détails yi liggéey yooyu. Mm-hmm. Euh, ba njëg ba ba ñu ko ba ñu ko waxee nag ñu wax ke njëg ba. Mm-hmm. ba ñu d'accord ci prix ñu ne kon nañ dem ci jaamu yàlla yi. ñuy wër di wër ngàbb suñu pot. wax dëgg yàlla ni ko sama ñu yaay sebatal xam ne daan defee. ñu dem seeti ay ay bàyyi defal yàlla. wax dëgg yàlla yàlla dogal. Euh, daanaka kër ga bu doon. Euh, téeméer la woon mm-hmm. mën nañoo wax ni juróom ñaar fukk yee daanaka dugal nañ ko ci njëgum kër ga mm-hmm. léegi mu des nag ni ñu koy yeggale te date bi jege lool mm-hmm. ñu ne nag ñu xool xool ci réew mi ñu ne ki ko mun a def nag confrance boo xam ne xol yi dina tooy ba ñu mun a yëgaat mooy ki ñu jàpp ne wëllëre saybatal xam di la woon di xaritam ñu bokk liggéey lu rëy ndax yëg-yëg ba saybata am ci jàkka ji yëg-yëg boobu moo nekk ci moom dëgg la xel yëpp dekki ne kooku rek mooy allah di ko ñaanal yàlla yal na yàlla yàgg taxawaayam. wax dëgg fa yàlla loolu rek tax ñu jóg ñu ne kon joxe ay leetar. Mm-hmm. amaanaa du doy. Mm-hmm. waaye nag bu ñu waxtaan ak suñu nijaay. Mm-hmm. ñu dem ba toog ci plateau ba. jombul am na nit ñi nekk ba bitim réew. dinañu mën a joxe seen contribution ci jàkka jooju ñu taxaw. loolu wax dëgg yàlla moom mooy suñu tànk tey. ngir jullit ñëpp. def ci seen loxo rawatina li sama baay sama maam. alaaji Abdou Aziz Dabakh daan wax mhm. naan kat néegu yàlla la na ko ci nekk ñëw def ci def ci dara ndeysaan rek la ñu doon ñëw ndax am na wóor nañu ne am na ñu nekk ci wet yi mhm. ñu sawar def lu mel nii mhm. amaanaa gis ñu ko nag ñu bëri dégg ko danañu a jël seen alal ak seen ñaq def ca am na solo ndax mbir ma nekkatul mbiru saybata la dëgg la am na solo oustaz Mouhamed Diouf oustaz dégg nga ko moom it fi mu daaneele am na solo lool mu mel ne ab woote la kon bu jëm ci néegu bëggub yàlla bi subhaanahu wa taala mm-hmm. eh, ci yaatal ko ak eh, ak jaamu yàlla daal kon moo ubbeeku mbokk yi di ci woo nit ñi mm-hmm. oustaz bala maa demaat ci mbokk yi kon yow laay laaj laaj bi donte ci ñiy laaj nga bokk mm-hmm. eh, loolu noo koy jàngate jàkk juñ dem ba mu yàgg ñu ne barab ba dafa xat ci waxin bëgg nañ koo yokk di woote nit ñi ñu dugal ci seen loxo tiyaaba jooju ak ak yëg-yëg boobu maanaam buñ ko waxee ci sa kanam yow loo ciy yëg waaw mooy su fekkoon jotoon naa sama cinquante deux milliards yi. ndeysaan. yi may ñaan. yàlla na ko jot amiin yàlla na ko jot na ko jot. kon dama naan leen rek. na nan nu xaar conférence ba. <laughs> bu ko defee su mu ñëw ubbi sama saag bi rek ne leen ñaata la. ndeysaan jërëjëf jazakumullah xeer. Mm-hmm. xam nga lu tax suñu bàkkee. Mm. mu ci mas a def benn waxtaan ci Thiès maag Pape ba ñu àndoon. ndeysaan keroog laa mas a gis mu xam. Mm-hmm. ndeysaan. dañoo am jàkka ju ñu de ju dendeeg. Euh, jàkka ju dende génn benn mhm. terrain benn terrain waaw. bi am maire ko moom. Mhm. ndeysaan. may waxtaan ci jàkka ji lu ko defar ba tudd ba tudd def ci jàkka. Mhm. waxtaan wa sore ba ma ci joxe misaal. ndeysaan maire ba jógee këram. daal di ñëw ca conférence ba. ne maye na terrain bii. may na ko jàkk ji. allahu la nun la maire ba def ko ci Cees la. ma gis euh, Pape Ba daal di xëm. xam nga lu tax. Hmm. dama ci am misaal dama ne leen dafa am genn benn sëriñ wax Cheikh Al Hadj Malick dafa ñëw dakaar hmm. am fi terrain ba fam ko am. Hmm. fam ko am. lu yenn quartier yi. ndax ca Sandaga la ko am. ñu defe ne centre centre commercial la koy def. te bu ko defoon it nëgë ni mi ngay génnee milliard ndeysaan mu def ko centre commercial sunu borom tudd ko zawiye mhm, mhm. ku fa julli tàkkusaan mhm. nu mbooloo ma toll na suñu borom ne ko mbooloo mi toll nañ ci trois cent personne jiit jullee nañ fi ku ci nekk am nga six mille six mil francs ci moom ndeysaan ci waaw est-ce que est léegi misaal moomu sëñ Mbàkke bu ko nit ñi déggewoon noonu dégg li yonent bi ci ku tabaxal nit jàkk ku tabaxal yàlla jàkka mhm. mu tabaxal la kër ci aljanna mhm. kon doo miraas la nga war def ca ok <laughs> dëgg la de looloo yëf yi mhm. dëgg la kon soññ bu am solo boo xam ne am na solo keroog bi ñu demee ci aj màkk gi jàkk ji lañ wax euh, xubaa waaw ndeysaan mën a mën a jigéen ñi ak ñooñu bu kenn defe na dañ ñëw fii rek xool xubaa bon affaire bi rafet na nañ fotowu ñibbi déedéet da danga naan luy xubaa mooy jàkka joo xam ne ki ko doon tabax di ko samp man nga ne ay noonama ko génne. mu jëm fu mu xamul fan la. Mm-hmm. Mm-hmm. yebaloon na fa nit daal. Mm-hmm. àggagul ca dëkk ba. Mm-hmm. mu yendu fii samp fi jàkk. Mm-hmm. loolu ku ko jàng ku nekk war ngaa fexe ba sa dund lu mu gàtt gàtt nga samp fi jàkk. kon nag jërëjëf ci sa laaj bu am solo. am euh, la ci ñëpp incha allah. am na solo jërëjëf Oustaz ci soññee boobu ndax loolu dana tax nit ñi dégg xam ne. Euh, def fu nekk baax na. waaye def ci néegub yàlla baax na. rawatina nag foo xam ne dañ koo soxla. te it ñoom tàmbuli nañ. ci ci ni ñu waxee. Euh, te it Oustaz Seybatul mi tàmbuli woon. xam naa ku ne woon pëkk pëkk fa nekk suñ borom nangul ko jëfam ji jëf ju rëy ma hmm. ndax tabax man de sama jumaa jee ca daaru ci bu uh-huh. gisaguma ko ko tabax ndeysaan waaw akbar uh-huh. ko ko tabax est am nga teereem waaw waaw mm-hmm. bëgg nga jàkkaam waaw waaw fu mm-hmm. teereem a nekk barab sàngam mm-hmm. tegu guma ko bët ndeysaan est que kon nag ku bëgg a def lu baax noonu jëndati ay action ci suñu borom subhanahu wa taala ak buntu ubbeekooti na bala maa continuer ci loolu oustaz ma joxaat kàddu gi imaam Ibrahima Diop imaam Ibrahima dama bëgg nga gën ñoo leeralal mbir mi nam demee ah. ca cosaanul jàkka ja eh, la ko fa sos mm. ak nam demee ba eh, ngeen jàpp ne mm. fi mu nekk daal xam naa jàkka du tuuti waaye xat na ci ñu fay jullee mm. eh, loolu nan la demee ah. tabarakallah oustaz eh, Mbacke. Mhm. kon maa ngi ñëw ci historique gu jàkk ji. Mhm. faddal fa mu bàyyee ko. Mhm. oustaz Seyba rahmatullah alayhi ni ko imaam Mouhamed Diouf waxee léegi. 2006. la jël terrain jox ko yàlla. allahu mu dem nag ci muxsinuun yi def njekk. nga xam ne dañuy indi ay financement yuy tabax jàkk. mu gaare leen pàkk bi ñooña ñëw tabax xaaj bu njëkk bi bi jàkk ci àggee nag mu tàllal loxo jullit ñëpp loolu 2006 la mhm. ne leen kaay leen ñu ànd liggéeyal yàlla ci néegam bi ñëpp wuyu ko mhm. ba mbooloo mi dikkee mhm. mu ni na ngeen former ay commission parce que jàkk benn nit mënu ko doxal mhm. travail commun lay doon mhm. liggéey bu mbooloo bokk al amalul jamaay ñu def ay commission mhm. commission bi yor lu jëm ci wàllu njàng ak jàngale ak jiite jàkk jeeg yooyu ñii yor wàllu financement trésorier denc wàllu alal ji commission bi yor wàllu social commission bi yor lu jëm ci travaux jàkk ci ñu nekk cay nap na bi di doxal di jéem di jéem ci baaxu yàlla. Mhm. ñu dem ba mois de juin. 2007. Mhm. Mhm. ñu commencé faa julli juma. fekk lu jiitu loolu julli juróom lañu fa daan julli. waaye juin ci 2007 lañ fa commencé julli juma. tabaarakalla ba ñu tàmbalee di xutba. ah di ko tekki nit ñi di ko dégg di ci jariñu. ah nit ñi dégmal jàkka ja. bañ dégmalee jàkka ja. ñu dem yaa ñu gis ni xat na. ñu yalwaane comme ni ñu ko defee tey mm-hmm. yëkkati ca kaw mm-hmm. bàyyi defal yàlla yi mm-hmm. yaay defal yàlla yi booy defal yàlla yi yàlla yàlla fay leen yiw ñoom ñëpp ñu tàbbal ci seen loxo ndeysaan ñu defal ay kàttu barkeelu fu ne ñu dugg fa rek ba ñu dal ca kaw waaye ànd ak loolu lépp rek jàkk ji xattati na ba fi ne jigéen ñi sax amuñu fuñ jullee foofu jàkk ja kër gi jàkkaarloog ñun <laughs> nga xam ni euh, borom kër gi mooy suñ trésorier si mhm. ñu koy tuddee Baye Cheikh Ndaw yàlla yàlla sàmm ko ndeysaan moom it mhm. mooy denc kees gi bu ba pare nag yemoo ci denc ko nag mhm. waaye daw wuti def ci kees gi yàlla na ko yàlla yokku wér amiin fa la jigéen ñee jullee boobu ndaw ko daal de bëri wut <laughs> ndaw ko ah waaye ndaw ndawel boobu tubaarkàlla loolu ustaas noonu la mbir mi demee 2006 ci lañ fondé jàkk ji juin lañ ci commencé julli. ndeysaan di def ay xutba. Mm-hmm. di def ay bayaan. Mm-hmm. daañu des kanam incha allah. Mm-hmm. def ay taraawix su koor gi ñëwee. def ay conférence daan ci ñëw ci yaatal. mbooloo mi wuyu si. mbooloo mi wuyu si. mbooloo buy fi xam. comme ni ñu ko waxee léegi. ah ñun ñëpp ñu doon mébét naan ak a neexoon kër gi si jàkk ji jaay. ñu di ko mébét rek. ñii mébét ba mu yàgg rek. borom borom men dafa dëgg suñu kàddu de. Mhm. olof naan wokkut bu tombe gestu. dëgg la ndeysaan mhm. mu ñu dee jaay kër gi. Mhm. waaye bu sañoon nag bu sañoon. balaa kenn di ci wax. jàkk ji lay njëkk a waxal. allahu akbar ci la ñëw gaaral ñu ko. mu wax ñu li nga xam moom la koy jaayee. ñu waxaale ba déggoo ci prix. quatorze millions cinq cent. waaw loolu la noonu la koy jaayee wàññi na ko nag. te def na ci ak xéewal ndax may nañu. ñu wuti. may nañ ñu yalwaane ba heure bu ñu amee. wax dëgg yàlla. est-ce que yàlla nañ ba am fukk. Mm-hmm. Ah, dañu lañ am fukk. kon quatre cinq cent quatre cinq cent moo des. <laughs> fii daal loolu de war nañ ko mën a dajale. waaw wax dëgg yàlla ah, wax dëgg yàlla bu ñëwaat si kanam incha allah daañu gën a talaat loxo yi. am na solo incha allah am na solo daal mooy ci gàttal. historique gu jàkk ji fa mu bàyyeekoo ba. Mhm. fii mu toll tey incha allah. am na solo jërëjëf Oustaz jërëjëf euh, Oustaz Ibrahima. ci euh, yu am solo yooyu nga ñu indil ci jàkk ji. Mhm. Euh, Oustaz Mouhamad Diouf. dégg naa fi oustaz Ibrahima Jaar mhm. mooy jàkka ji tabax nañ ko mhm. mm, teene boo xam ne oustaz Saybatul di moo ko moomoon mhm. ñu seeti ñoo xam ne ay defkat lu baax lañ ñu tabax ko ñu dem ba jàkka ji xat ñu tàllalaat ay loxo mm, mbokk yi dugal seen loxo ñu yokkaat ca kaw ñu demaat ba bëgg a jënd kër gi taxaloog moom fas yéenee tàllalaat ay loxo xanaa jàkka ji moom daa amul benn organisation amul kees amul lu ñuy joxe ña fay jullee kiiwu dara ba ba daanaka lépp ci nii rek lañ ko bëgg a jàppoo waaw euh, tabarka alhamdulilah <laughs> euh, jàpp naa ne sax euh, organisation ak kees. Mhm. moo tax mu yegg fa mu yegg. Mhm. ndax. Mhm. fa sama nijaay yemoon. boo fa jàkka ñu yemoon ba tey. kon dañuy ne ñun day liggéeyuñu. waaye ni Ibrahima imaam Ibrahima waxee léegi. jàkka ja yàlla dogal na ni ñoo organisé fu ñu jullee timis ba daaneel. kenn jóg fàttali benn waxu yàlla wala benn jàngale yenent bi sallallahu alayhi wa mhm. sallam ndeysaan loolu mujjee mu modifié nit ñi euh, euh, ci gox ba mhm. ba sax maa ngi wax ak benn borom kër mu ne man de dama mujjee dajale sama njaboot yëpp man leen fu timis jotatee rek mhm. dem nañ julle ji ci jàkk jële ndax ku fa julle rek da fa dégg yàlla nee na yenent bi nee na loolu jur jàkka ja organisé wu di amal ay tafsir di amal ay durus fiq di amal ay ay ay conférence di amal ay bayaan même xale yu góor yi ci koñ ba. Hmm. aju ma bu jot dañuy daje ci jàkka ja def ay waxtaan ki seen biir ci wàllu ndaw ak lislaam hmm. waaye organisé wu ñu Oustaz Chebe moo commencé woon. Hmm. tout tànk yi nekk ci koñ ba. ay ñi am ñetti at ñeenti at juróomi at. woo leen ci jàkka ja. ku ñëw julli si rek mu jox a tàngal. ndeysaan ba xale yi koñ koñ yooyu yëpp mujjee ko xam ba fi may wax ak yow. daanaka téeméeri xale yu ndaw dinañ julli ci jàkka ja par julli juróom. ndeysaan mooy tisbaar tàkkusaan ndax ba tey ku fa julli rek booy dem yóbbu tàngal. fikra boobu Oustaz Cheikh moo ko fa moo ko fa bàyyi woon. yàlla dogal nag. Mhm. dajale yooyu ni ñu doon dajale. Mhm. moo jur ñu tabax ca kaw. mu mhm. fees. comme ni ko mbokk mi waxee léegi. prix xaalis bi mu wax nii. loolu dafay nekk luy dog njëg. te sama ñu yaay wax na léegi ne. incha allah am nañ yaakaar ne conférence dina daanu. waaye bi ñu xoolee jàkk ji. ñu gis euh, ci ci biir dër ba nu mu tojee mm-hmm. ñu gis place junukaay jigéen ñi ñu war a defar mm-hmm. ñu gis morgue bi ñu war a defaraat mm-hmm. defar defar yooyu bu ñu xoolee suñu budget rek lépp dana nañ daal di jox vingt millions vingt millions yooyu dañu ne woon conférence bi incha allahu taala am ñu yaakaar ni bàyyi defal yàlla yi dégg mbir mi mhm. njëg ba moom am nañ yaakaar ne bu ñu ci génn comme ni ko sama ñu yaay waxee léegi mhm. njëg ba moom nañ ngi laa jënd mu jeex travaux ba nag xam naa ni jombul sax am na ñoo xam ne lii sama ñu yaay waxee léegi bu ñu koy dégg léegi seen milliards dañ ci dindi def ci ndax ñëpp bëgg lu baax dëgg la kon jàkka ji mhm. ci liggéey bii la ñu toll organiser ci góor yi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi euh, sëñ Mbàkke si la yàlla dafa leen sutura jàkka ji boo fa ñëwee. Mm. doo xàmmee kuy murit. Mm-hmm. doo xàmmee kuy tijaan. Mm-hmm. doo xàmmee kuy ibaadu. doo xàmmee ñëpp ci bokk. ñëpp ci bokk. Mm-hmm. jàkka ji boo ñëwee daal ñëpp ñoo bokk benn te jàkka joo xam amul coow. amul wax. amul dara amul xëccoo ñëpp. ndeysaan ñëpp a yem. loolu yàlla dafa lañ ko sutura ci jàkka ji. kenn du fa ñëw ndax la saybata doon xalaat bay bañ nit ñi wax ne ni saybatal xam di moo moom jàkka ja. ba ñuy fal imaam mag ñi ne ko yaa fiy mag yaay nekk imaam. Mhm. mu ne bu leen ma jiital. Mhm. man bu ma sañoon xale yaa ngi fi. Mhm. seen njàng alquran rafet na. te dégg nañu diine ngeen jiital leen. waaye man say ba dama nekk mag rek nekk seen ginnaaw. di leen puus. est googu mu bàyyi woon. sunna googu ba tey moom mooy dox ci biir jàkka ja. wax dëgg yàlla di ci sax profito. di gërëm. mboolem magi koñ ba yépp. mag ñëpp jàpp nañ ci liggéey jàkka ja yàlla dogal na fa tabaarakallaahu mm-hmm. ñoom ñoo yore kees ba mm-hmm. ñoom ñoo yore kàddu jàkka ja mm-hmm. ñoom ñooy dox lépp kon ci wàll bi Ibrahima Diop doon waxee nii lii moo jur ñoom ñu delluwaat bëgg a yaatalaat bërëb ba ndax jigéen ña amuñu fu ñuy julli xale yu ndaw ya ñu nga ca ginnaaw a ginnaaw timis daanaka góor yi bu ñuy duggee rek fees na ndeysaan am na solo loolu daal <laughs> foofu la jàkk ji toll tey tey ci ci tolluwaay mm-hmm. am na solo am na solo kon jërëjëf oustaz euh, Mouhamed Diouf imam mm-hmm. oustaz kon dégg nga gars yi de fi ñu tollagoon waaw xanaa fàttali ñuy déglu mm-hmm. sunu gan ñi waaye fàttali ne léeg-léeg ngeen bu ngeen déggee émission bi li ngeen xam ne publi reportage la publi reportage nag mooy ñi nga xam ne ñoo soxla lu mel nii jaar service commercial. Mhm. ñëw ci stu ñëw ci studio bi. Mhm. waaw ko defee ñuy déglu ñoo xam loolu. Mhm. moo tax nit man fee ñëw ni lii lañ bëgg. fii la ñu toll. li mooy suñu programme. Euh, tabarkalla am na solo ñuy dégg déggee ko noonu. am na solo waaw incha allah ma <coughs> ah, euh, koo def. Mm, très bien. am na solo oustaz jërëjëf kon mbokk yi dégg jàngat mi nga xam ne moom lañ defagun ci mm. mbir mi. Mm. Euh, war a woote am ndaje nag moo xam ne solo sos ndaje ma mooy jëm ci euh, bis boobu mm-hmm. mm, defe naa dimance ji la war a doon ci ngoon gi mm-hmm. mooy conférence bi sa jarbaat bi oustaz Mouhamed Diouf di junju mm-hmm. te nga wax léegi ne jombut ne loola war na faa mën a daje ah waaw euh, <laughs> léegi nu ngeen defa conférence bi ak ndaje mi dangeen woo euh, ñi ngeen yaakaar ne ñoom buñ ñëwee indil leen lu ko mën a tabax ngeen bind leen yéen a ngi génge laaj bi de te daanoogul <laughs> waaye woon ngeen ñeme ko rek <laughs> waaw da bind ñi nga xam ne ñoom yaakaar tooñ ngeen leen wala fan ngeen jaar ba dajalee fukki millions yi ngeen dajaleegun di wut ñeent yéen li ngeen dajalee ëpp li ngeen di wut di hmm. waaw léegi euh, sëñ Mbacke hmm. laaj bi am na solo hmm. man de jàpp naa ni bu doon li des ci jënd kër ga rek kon dama ne sax jëlu ndax sama yaay bu ñëwee rek am naa yaakaar ne loolu lool loolu dina fa dina fa génn mais sañu jaay dane bu cinquante deux milliards yi ñëwee <laughs> waxin la ay ah, ayca euh, waxin la rek bu laaj dégg ayca kon euh, maanaam li ma bëgg wax foofu ah. mooy sama ñu yaay macha allah ndeysaan yàlla defam na ko am na soppe loolu ci dëgg la dëgg la wallaay ñoo xam ne bu yëkkati woon kàddoom mm-hmm. ñooñu daneen daw wut si loolu ndax bir na leen ni mm-hmm. la sama ñu jaay di wax ak ñoom ndeysaan wér na ni. Mhm. dinañ ci am ab yor yàlla. dëgg la dëgg loolu mhm. aw ma ci sikki mhm. euh, xanaa kay la tegu nga xam ne bu ñëwoon. liggéey jàkk ji daan mët. loolu kay moo waral woote bii ñu woote. te sama yaay keroog sàll incha allah mu war faa waxtaanee rôle bi jàkk di def. ndeysaan waaw rôle bi nga xam ne jàkk dana ko def ci pénc. ndax ñu bari tey. Mm-hmm. dañuy jàppee jàkk rek mooy julli ni nga sëlmal génn. Mm-hmm. macha allah yal na ko yàlla yokk taxawaay mm-hmm. fekkee naa mu def ci ay waxtaan lu bare bari bari. looloo waral ñun. ñu njëkk a woo xalifa xalifa juróomi ci réew mi yëpp. sama maam Sidi Muxtaar Mbàkke yal na ko yàlla yokk tawfiq ñu ngi koy woo ci bis bi. ak képp ku ko déggal. Sidi Ahmad Tidiane si. Mhm. ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla na ko yàlla yokki tawfiix ak wér. amiin ak rakkam ju baax ja mu bàyyi Tiwaawoon mu wóolu ko dénk ko njaboot gi. Mhm. ñoom ñëpp la ñu woo ci bis bi. Mm-hmm. ndax ñi may wax ñi yëpp seen njaboot ñoo bokk moo nekk ci jàkk dëgg la de ku leen woo ci jàkk war nga leen a woo. te kat ñun li ñu ah. gëm mooy ñun dañ leen wuti ca jàkk ji waaye jàkk ci seen jàkk la ñoom. Mm-hmm. Mm-hmm. ndax ñoom ñooy suñu kilifa ci diine. dëgg la ñun nag dañ leen fa wuutu. wuuti leen ci biir bar ba. wuuti leen ci jàngale ba wuuti leen fa ci jiite mbooloo ma. noonu la ñuy woowee mboolem kër kilifa diine yëpp. di woo mboolem association islamique yëpp. bàyyiwuñu kenn moo xam muy falaax muy istiqaama ibaadoog jamraat ñépp la ñu woo mhm. bàyyiwuñu kenn ndax jàpp nañu ba léegi ñun ak ñoom ñoo bokk tool bi mhm. fàttewu ma nag sama ñu jaay oustaz Dame Ndiaye mhm. wax dëgg yàlla ak sama baay Sidi Xaariloo ñoom ñépp ñu leen di woo ci bis bi waaye noonu la ñuy woo itam imaam yi imaam yi la woo ci Sénégal yépp rawati nag imaamu département bu Pikine te sama yaay imaam alaaji Malick ña ngi jiite leen mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu ngi leen di woo ci bis bi mm-hmm. bàyyi ñu kenn ci imaam yi ndax imaam yi ñoo ñoo aye mm-hmm. noonu itam sëñ Mbàkke nga baal ma noonu lay wooyee président de la république Macky Sall li tax may woo Macky Sall ngeen am gan li tax may woo Macky ci bis bi jërëjëf sama ñu yaay <laughs> Macky Sall yàlla dafa dogal mu bokk ci jàkk ji laata muy falu tournam yooyu mu doon def ñëw na ba kër sama ñu jaay Saybatal Hamdi mm-hmm. ngir waxtaan ak njaboot ga waaye sàkku fa ñaan mm-hmm. keroog macha allah am na lu mu yëkkati mu def ci jàkka ja mm-hmm. may fàttali di wax ne jàkka jooju mu defoon dara jàkka joojee tey mooy laaj ngir ñu yeggale ko te kat xam nañu jëf yu baax yu rafet yi muy def ci kër kilifa diine ci réew mi ñu koy ñaan te xam naa ne mën na ko te am na yéene gi mu ñëw dugal xam ci jàkka ji incha allah Marème Faye Sall moom jarul sax ko koy tudd. ndax fekkee naa ca Kër Massar mooy inauguré jàkk joo xam ne moo ko liggéey. kon bu mu tuddee borom këram. mu koy jàppale saa su nekk ci kër gi ak ci biir dëkk bi. Mm-hmm. kon moom moom moom jàkk ji. noonu la ñu woowee docteur Cheikh Kant. Mm-hmm. tabarka la yaakaar naa ne évitation jot na ko. te ña ko jot. ñu xamal lañu ne egsi na hmm. te incha allah dina ci fas yéene def loxoom ñu ngi koy tàllal loxo bu baax a baax moom docteur Cheikh Kant hmm. du di tàllal bu baax itam euh, Daouda Ndiaye maire yëmbal noor hmm. moom dafa dafa dafa boole boppam ci jàkk ji dañoo dem ba nee na moom lépp lu may def ci mbirum diine ci jàkk yi ci gox bi rek dama ciy boole jàkk ji nga xam ne Oustaz Cheybatal di moo ko fondé wax dëgg yàlla am na taxawaay yu rafet yu mu am ci jàkk ja kon ñu ngi ko ci woo. Mhm. di ko ci laaj taxawaayam bu fës a fës. comme ni ma ko daan defee. Mhm. noonu la ñu woo itam suñu dëkkandoo Ibou Guèye mhm. ak ña mu àndal di liggéey yépp waaye Ablaye Timbo itam maire département bu Pikine mënuñu ko ñàkk woo ci bis bi. ndax ñun ñu ngi ci suufu ci njabootam la ñu bokk. noonu la ñu wooyee Moustapha Sané noonu la ñu wooyee Ousmane ci Kër Massar wax dëgg yàlla taxawaayam gis nañ ko bu baax a baax. waaye ku wooñu ñëpp itam nga wax shaybatal hamdi même bul kilomètre cinquante mhm. moo tax mbokkam ma Momar Siis muy président comité raaru Kër Moussa di mbokkam ci néegu ndey ñu ngi koy woo ci bis bi alhamdulilah mook ña mu bokkal mairie ba yëpp ñoom Souleymane Diouf dëkkam mbul ca barik ak chef de village ba Moustapha ñoom ñëpp ñu leen woo mhm. noonu la wooye itam ku wax góor wax jigéen wax dëgg yàlla Adja Ndeye Khady nekk jiite groupement kaay baax di liggéey liggéey yu am solo ci lislaam ci gox ba ñu ngi koy woo ci bis bi mm-hmm. ak waa mbootaay ba yépp noonu la ñu wooye Adja Korka Jéeri moom itam ca bis bi mm-hmm. waaye ku wax ñii nga wax ñoo xam ne ñu dugal sa loxo ci jàkka ji ku mel ne yu si yàdd wax dëgg yàlla ñu tuddeewuñ ko bàyyi jàkk mm-hmm. moom ku nungoo def la ci jàkka ji ak gàbbi faal wax dëgg yàlla ñi ñëpp ay nit lañ ñoo xam ne ñu ngi def lu bare bare bari ci jàkka ji kon sëñ Mbàkke su ma tënkee foofu damay naan bàyyiwuma kenn ci réew mi dëgg la ndax ku wax ci xalifa yi mhm. nga wax Macky Sall la nga ñëw ba ci maire yi ak mhm. ajaa yi mhm. bàyyiw ñu kenn kon ñëpp ñu leen di woo ci bis bi ñu ñëw ñu teewe bis bi ñu déglu conférence bi ci jàmm ak salaam bu li sama ñu jaay daan wax ah, teew teewal ñu ngi koy sàkku ci ñëpp insha allah am na solo macha allah jërëjëf oustaz euh, Mouhamed Diouf du woote yi am na solo defe naa da du daj sax waaye kon ma ne xaw tuuti kon mu daj waaye nag euh, am na solo xam naa oustaz kon ñoo ngi ci suñu yi nga xam ne moom la mm. sa mbokk mi woote mm. eh, tamu yaatu lool mm. eh, wax na itam jotaay ba fay am nga xam ne woote nañ ngir jënd kër ga ngir yokk ko ci jàkka ji waaye woote nañu it ci conférence bi nga xam ne moom la fa Oustaz Alioune Sall war a def loo ciy yokk waaw li ma ci yokk de mooy jaajëfal leen mm-hmm. jaajëfal way déglu yi mm-hmm. te itam xam ne ni lañu war a def mm-hmm. jamonoy xaaj Abdul Aziz radiyallahu taala anhu su lu mel nii masaana xew mm-hmm. mooy ñëw jiite waxtaan wa mm-hmm. su defee bu ñëwee toog waxtaanee ba xol yi tooy mm-hmm. mu ne acca ñëw leen ñu def ci jàkk ji léeg-léeg ñu ne ko sëñ Mbàkke si la ñëw na mu ne lu joxe ndeysaan ñu ne ko cent mille mu ne sëñ Mbàkke ñeme na maa jox cent mille ndeysaan Mbàkke yaa ma jox cent mille ndeysaan nga sëgg mu ne ñëwal yokkal sa loxo cinq cent la laa lay laaj noonu la ko daan defee léeg-léeg ñu ne diw de ñëw na joxe na cinq cent mille mu ne diw man ñu ne monsieur le préfet mu ne a ah, monsieur le préfet yow yaa ma jox cinq cent mille mm-hmm. indi million te muy lu baax rek yéene leen àjjana rek sëñ Mbàkke tabarkal yéene leen tiyaaba moom moom nun nun la ko yàlla mayoon ndeysaan jàkka ju mas a toog bala faa jógee waa jàkka ja te wax jàkka ja ba desal mm-hmm. barke boobu nag yàlla na ko yàlla def ci jotaay bi. amiin amiin amiin nga xam ne nañ ko déggee noonu. amiin eh, tabaarakallaa te wuysee noonu. amiin ah, am na solo lool. am na solo bu ko xamul. ñu xamul boon. ngeen fàttali leen adresse am na solo kon oustaz bu ñu joxee oustaz Ibrahima Diop nga fàttali ñu adresse bi. ak it bu fekkee jàkk ji dafa am numéro compte. boo xamante ne ñi ci bëgg a jàpp man nañ cee jàpp. wala fu ñuy jaarale hmm. seen seen loxo ngir mu agsi ca jotaay bi. waaw waaw allah fa tabarakallah oustaz jazakumullahu xeyr oustaz Mbacke jazakumullahu xeyran ci leeral yooyu oustaz eh, imam Mouhamed Diouf eh, jàkk ji mi nga nekk eh, route de hmm. boo ñëwee ba fu ñuy wax mbedd Fass hmm. boo xasee ñëw ba route de fu ñuy wax mbedd Fass hmm. foo fi laajte mbedd sayba rek nga ca jàkk ja alhamdulilah boo xasee fu ñuy wax mbedd Fass foo laajte mbedd sayba rek daanaka àgg nga jàkk ja àgg nga foofu la jàkk ja nekk incha allah am na ay numéro yu ñu yor numéro téléphone yoo xam ne ku ci bëgg a jàpp mën nga jokkoo ak ñun ñu mm-hmm. jox la numéro compte bi. Mm-hmm. Euh, mën nga jël numéro imam Guèye mi nga xam imam ratib bi. Mm-hmm. numéro mooy 77. 567. 77. 70. kii mooy numéro imam Aliou Guèye imam ratib bi. d'accord. Euh, naka noonu it mën nga jokkook euh, euh, trésorier bi. Mhm. di bàyyi Seex Ndaw di kanu Saladi Sall. ndawen bi yéen dénk xaalis <laughs> ah, mais masa ndawen bi ku wóor la. Ah. moom yemul ci sàmm alal ji. waaw waaye day dem wuti. Mhm. def ci kees gi. ah waaw après oustaz dana ma ci wax xalaatam. <laughs> tabarkaal moom it numéro am. waaw 77 la. waaw 572. 96. 90. waaw. naka noonu it mën nañu jokkoo ak euh, imaam Mouhamed Diouf mi nga xam moo doon wax léegi. Mm-hmm. ci numéro bi. 70. 300. 330 330. 29. 38. ñetti numéro daal ku ci jokkoo. Mm-hmm. incha allah daañu wax numéro compte bi. Mm-hmm. su ko defee ci loolu Mbàkke. may tënk tuuti rek ci leeral nit ñi rek ak fàttali leen. ngëneelu def ci néegu yàlla. bismillah. Euh, mbokk jullit yi sunu borom moo tàllal loxoom. ni sama jàkka ñi nii xat mm-hmm. sama néeg ñu bëgg koo yaatal mm-hmm. kër ga sës ci moom di jaay mm-hmm. maa talal sama loxo man yàlla ngeen teg ci sama loxo bi lebal ma ma jënd kër gi yokkee sama néeg boo liggéey ma fayee leen àjjana moom la wax ci alquran kan moo may lebal bor bu rafet te su ma lay fay fay la lu ëpp li ma defal bokk jullit di joxe ci néegu yàlla pertement amu ci wallaay ki yàlla yónni ci ñun hmm. da koy tënk ci benn misaal mu gàtt ne ittaqu naara hmm. walaw bi shiqi tamra allahu akbar góor ngeen def lu leen di fegal ci safara hmm. doonte benn daggitu tàndarma ngay jël sax joxe ko ci yoonu yàlla yàlla mën na a dëgg fegal la ci safara allahu akbar kon mooy wax mbokk jullit mhm. ku ci tàbbal sa alal lu mu néew néew néew mhm. jàppal ne àjjana la la ko yàllay faye wa ma anfaqtu min shay'in wa ma mhm. anfaqtu min shay'in fa huwa yuxlifu te lépp lu ci waay dugal sab ñaq yàlla wuutalal la lu ko gën allahu akbar te joxe ci yoonu yàlla moom yokku rek la yàlla moom waxtu woo joxee ci yoonam yokk doo wàññeeku mukk ndax ñaari malaaka la jël comme ni ko yonent wax sallallahu alayhi bis bu yàlla sàkk malaaka yi tiim ñu benn malaaka mi li muy wax mooy allahuma aati munfiqan xalafa wa aati mumsikan talafa benn malaaka mi li muy ñaan mooy yàlla képp ku jël ñaqam di ko dugal ci yoonu yàlla rawat nag lu mel ni jàkka ji mhm. lu mu joxe yàlla na nga ko wuutalal lu ko ëpp amiin yaa rabbal aalamiin kon ñu ngi ci woo mbokk jullit ñi jërëjëf jàkka jaa ngi nii mhm. xat na mhm. kër ga sës ca moom mhm. di jaay mhm. yàlla moo tawal loxoom lebal leen ma ma jënd kër gi yaatal sama néeg lu ma leen di fayee muy na kon ñu ngi ci woo mbokk jullit ñëpp bu kenn xeeb dara ku ñu woo ni joxe nga li joxe nga li des lépp it ñu jël alhamdulilah fa tabaarakal di woo jullit ñëpp rek ca conférence ba di fàttali ne lettre yi ñu joxe it bu ci kenn xeeb dara wallahi yàlla li mu soxla ci jëf rek mooy na sell lu mu tuuti bu sell rek baax kon bu ci kenn xeeb dara ci enveloppé hmm. di woo ñëpp ci bisu conférence ba ku teew teewal it moo ñu gënal mhm. waaye ku teewul te teewal it ba tey baax na fa tabarakallah <laughs> jërëjëf jërëjëf oustaz Ibrahima mhm. euh, oustaz xam naa loolu moo nekkoon tax moom ab daaneelam daanaka mhm. ab tàggatoo ci bëgg a des imaam Mouhamad Diouf dégg nga oustaz Ibrahima ginnaaw bi ngeen wootee joxe numéro téléphone yi mu tegtal ñu fa nga xam ne fa la jàkka ji nekk ñu ne dañ koo bëgg a yokk am kër gu dend ak moom di jaay ñu bëgg koo jënd kër ga di jar fukki million ak ñeent ak genn wàllu million fukki millions yi jàpp ni na mu des ñeenti million genn wàll am na conférence bu fa war a am xam naa ci loolu jarul ngay ñëw ci sa kàddu yu mujj rek mm-hmm. wax ñu programme conférence bi nan lay demee mm-hmm. kañ lay tàmbali mm-hmm. ban heure lay jeex ak yi nga xam ne moo ci tege boole kook sa tàggatoo <coughs> waaw incha allah pour dugg ci tomb boobu rek xam naa fi mu daanale léegi di wax ne ku jóge ndakaaru nga bëgg a ca euh, caru dëbbuun bu ñëw ba toll ak station Fass Mbao ndeysaan da ngay daal di jël sa càmmiñ waaw sa càmmoñ boobu télé bi féetee sa càmmoñ moom ngay jël mooy ñi jógee ndakaaru ak li ko wër mhm. boo yebee foofu boo duggee si lay sa càmmiñ nag mhm. da ngay ba si biir mhm. nga boo jéggee raay bi rek tali buy jëm mbedd say bata mu ngi noonu ci kanam mooy route de Boune bu dee ñu jógee Tëngéej wala Thiès wala dëkk Oussa Cheyba ak yi mel noonu ñoom itam bu ñu rombee Kër Massar ñu jëm ba egg Fass Mbao rek ñu jël seen ndeyjoor bi noonee moom mooy fi jëm Kër Oussa Cheyba alhamdulilah alhamdulilah rabbil alamin ñu ngi woo mbooloo mi yëpp nag bu ñeenti waxtu Euh, jotee si ngoon. Mhm. ñeenti waxtu la ñu bëgg. mu tàmbale sama ñu jaay oustaz Alioune Sall. mu mhm. tàmbalee conférence bi. Mhm. Euh, bëgg nañu balaa timis ci jot. conférence bi lépp a jeex. moom incha allahu taala la mu fa war a def ci conférence. danañ ko def ci ay kasetu CD yoo xam ne. képp ku ko soxla dina ko mën a jot. ndax ku nekk xam na ni sama yaay moom conférence am moom moom ki ñëwul daal lañuy la ñuy yërëm waaw waaye ki ñëw moom mm-hmm. da nga naan man kay wax dëgg yàlla xam naa sax su ma yëgoon ma nekk ci siis yi nekk ci mm-hmm. kanam mm-hmm. te li muy wér mooy conférence na ko waa bun ak li ko wër ni ñu koy waajalee ku yeex du am place ndax invité nañu lu jëm ci ñeenti junniy doomu aadama invité nañ leen ci conférence bi te lépp dem na fii may wax ak yeneen daal ko junniy siis ak lu topp daana mu ngi ci place ba mm-hmm. te am na yeneen yu ñu war a dolli. Mm-hmm. kon lu muy tekki mooy ku yeex. Mm-hmm. ca gannaaw baas ba ngay jëm. kon ku yeboo rek ku añ rek. Mm-hmm. gaaw a ñëw jël sa chaise. kon loolu la ñuy wax ci wàllu programme bi. xëy na di tëjee suñu kàddu. di ñaanal sama ñu yaay sàll. yàlla may ko tawfiix. amiin bu wér a wér a wér. ndax li ma bir bir mooy. am na yéene gu sell. ci ñëwam ci conférence bi. dëgg la de gu sell mu joxe ko ci anam bi gën a rafet. la mu ci yéene yëpp yàlla ko ko yàlla rabbal alamin di ko ñaanal daaram ja yàlla na ko yàlla gën a soqali Ali Imran yàlla gën a yaatu Mbàkke wax dëgg yow itam ñu ngi lay ñaanal bu baax ndax suñu imam Pape Aliou Ngueye sonal na la lool <laughs> daanaka ñaari fan yu ne mu woo la téléphone wax dëgg yàlla teewoon nag fu mu la wooyee mm-hmm. yaa ngi jël di wax ak moom boole ko yaati dënn wax la mm-hmm. am nañ ci kontaan waa jàkk yëpp bëgg ci yow wax ñu ngi leen di nuyu bu baax waaye mënuñu tëj suñu kàddu te duñu ziyaara mm-hmm. borom kër gi ak rajo bi mm-hmm. di ñaanal yàlla rajo bi yàlla na ko yàlla yokk yàlla dem ba jur ay rajo yi bëri jur ay télévision yu bëri nga njëkk ñu ci kàddu bi am na solo am na solo us imam Mouhamed Diouf euh, imam Mouhamed Diouf am na solo imam Ibrahima Diop it euh, jotaay bi am na solo mm-hmm. euh, xam naa woote nga lim nga fi ñu bëree bari mm-hmm. waaye ñi nga bëgg a woote limoo leen ñoo ëpp waaw lim bi da doon tegtale rek ne ñooñu lañ tudd seen i tur waaye jullit yëpp lañ woo ci defal yàlla amul ku ñu woowut numéro téléphone yaa ngi noonu woo naa leen soppe waaw waa Ali Imran yëpp woo naa moom kay defe naa ne ñoom ñëpp danañ sagale Oustaz ñëw jàppalete ko ci liggéey boobu barakalla masha Allah parce que li ma mën a seede ci wàllu jàkka moom mooy ànd na maak moom ci loo xam ne léegi mu mat ñaar fukki jàkka mm. yoo xamante ne taxawu na ko bañ noppi mm. yenn yee ci tegum xeer ma la ñuy woote at mu jot ñu conférence mm. mu dajal leen leen ñu jënd ciment bañ kuule mu ne tàmbali leen a julli bañ ñëw fekk jàkka ja mel ne pale kon nag xam naa jàkka ji xaritam ba tàmbali woon lu mu ca def rek eh, dana mel ne eh, mooy raw sax jum masatee def kon nag woote bi moom dafa mel ne lañu waxoon ne naar ba bañ ko mbéjee <laughs> ah. ba muy yuuxu daa jëmale gi mu ñëm gànnaar ah, <laughs> ñu ne ko loo jublu mu ne fa laa yaakaare wallu <laughs> waaw ah. kon donc bu ñu yuuxu dañuy yuuxu fi ñu yaakaare wallu rek waaw kay Oustaz Alioune kon kaddu gaa ngi noonu waaw kaddu gaa ngi noonu suñu Mbàkke mm-hmm. kaddu gaa ngi noonu suñu gan ñi mm-hmm. waaye kaddu gaa ngi noonu ñu ñu bokk di déglu mm-hmm. ndeysaan woote bi daal itadaakum lima yuhyikum ndeysaan laay ji mokk na léegi laay ji mokk na ci penc bi saa boo ko tàmbalee ñu àggaleel la ko mhm. kon nag woote boobu loolu la ndeysaan yàlla na yàlla def lépp nag ci téere yi jëf yi mbokk ma mhm. Cheikh Sibadul Hamdi Diouf amiin yaa rabbal aalamiin eh, moo ko nisoroon mhm. def ko waqf waqf mooy jël sa alal jox ko yàlla dem bàyyi ko fi ndeysaan ndeysaan suñ mbàkke ni gaa yi amee droit d'auteur ci musique ndeysaan noonu la gaa yi amee droit d'auteur ci jàkk yëg bu maay doirateur mooy fi ne bu Sidi Gueye fanaanee fii. Mm-hmm. bépp musicien bu mu teg kasetam. Mm-hmm. am na luñ ko ameel. dëgg la. Mm-hmm. am na luñ ko ameel. dëgg la loole dañ ko koy defal ci ci ci ci ci yëfu ci yëfam. waaye itam ku def waqf sa kër wala ñoom seen yooyu. boo génnee àdduna. sa doirateur da lay fekk fa nga xam ne fa nga nekk. dëgg la ah nañ nag. ah yaakaar nii ñëw. yàlla na ñëpp ñëw. Euh, ni ko suma gars yi waxee léegi. Mhm. kon nag mbir maa ngi noonu rek. ñun mhm. ñëpp nañu ko def suñu mbir. bu dimanche bu nu añee ba noppi rek. Mhm. daje fa nun ñëpp euh, ndaw ku ndaa xam naa kenn du ko fa jiitu <laughs> defee buñ fa daje ñu ñëpp euh. waxtaane suñu tomb muy rôle bi jàkkay def xëy na ñu dégg ci ne ndekete koñ munta ñàkk jàkka dëgg la su ko defee su boobaa ginnaaw mënu koo ñàkk nun noo koy tabax ndax yàlla du wàcc malaaka yi pour ñu tabax ko déedéet waaw loolu xewi na mos mm-hmm. naa am nag ca Kaaba waaye xewi na mm-hmm. léegi noonu la ko bàyyee mm-hmm. waaw tabarakallah kon daal am na solo li ñu def rek mooy delloo la kàddu gi jërëjëf oustaz ñu tëj xaar sunu mbokk yi eh, waaw tafaddal maskura lan moo ci tege jërëjëf oustaz jaajëfal la bu baax jaajëfalaan mbokk yi fàttaliwaat seen numéro téléphone yi ñu fi bàyyi mooy 77 567 77 70 77 572 96 90 70 330 29 38 jaajëfal nañ leen bu baax jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñoo rajo kon hmm. Oustaz ne tuuti ñu ànd ak waa rédaction bi ci hmm. xibaar yi ci français ak ci hmm. wolof dellu siwaat ñëw ci li ci topp insha allah dellu siwaat ñëw ci li ci topp insha allah jërëjëf sëñ Bakki jërëjëf mbokk ñu déglu نقادر السحاب مركزنا ينادي طلائع الشباب هلموا هلموا نقادر